tuddu nañ ba pare sax tuddu ñu ba pare kan gën tuddu dom ji papa kader def na lu rafet delo na boom sa boy boy ba ndax gënul ci famille bi man tax daf ma bet kader yow la tuddé dom ji الحمد لله رب العالمين li ma daan wax nag du ma ci jub Kader maa ngi topp ci ginnaawam boobu ba léegi loolu baax la même su ma fa nekkul yàlla nga fa comme li ma leen doon wax rek na rek topp mag mag yéen blank loolu moom soo tëddee na rawal loolu laa alhamdulilah waa fi ngeen nekk métti na trop mais dafa am lu ko gën a metti lu xew sa ginnaaw. lu gën a metti lu mel naan fii galère lu gën a métti mënul am fii dañu tàmbali nekk ak say doom di yow wandoog ñoom di waxtaan ak ñoom di lekk ndoog ñoom def lépp léegi doo leen gis.

man bu may tenir ba heure bii dofuma yàlla rek moo may sutura waa durant li ñuy dund yépp ak li ngay dund ak Amina yépp ci kër gi daf ñoo bernde waa Amina ay fen rek la dëkkee woon ak yow ay fen rek la dëkke woon ak man man nag dama ko te bàyyi naa ko àdduna ak àllaaxira li ñu nekk yépp Sois fort, papa. Amina du sama yaay doo sama papa. Eh, bu jooy kay kay kay kay kañ si nag fii sa rafetaay bi ngay jooy. sama nga niroo nag moo tax rafet macha allah. Aïda Aïda. lan la quest kontaan am mbégte. ci geste bii nga def dafa rafet trop am na ñu la mat defuñu ko tey doomu baay bari na ñu ngi reyante nekk mu wujj et pourtant yow gis na ni ma demee ak yéen mais xooloo ko yow sama famille yow kase yaa fi ñëw seet ma sama xol a tooy rek may jooy te li nga def nii Ça me fait énormément plaisir. Aïda, man jàppee ma la doom baay maa jàpp ne maa yow ñoo bokk ndey ak baay yow maa yow ñoo bokk deret Aïda deret bi daw ci yow mooy daw ci man mii donc bu nekk fii ci jooy. réaction bi nga am man bii laa am je sais pas nak. parce que mënuma laa expliquer li ma la wax rek moy. on soit disant tonton mak la nekkal di tek ay dil Lepp ci fofu la jaar a une importance à bientôt à non, Tu a une connaissance a yàgg service foofu une fois mu promotionnaire am la je m'en rappelle très bien. donc xam nga tonton Mag. xam naa ko vu une fois. waaw bah, Amina baxul man nak bi ma ko xamee mais wasis était au courant de tout lu bëri luma ma xam moo ma ko xamal. Kader boo ko defee nga ne Amina kër ga moo fa bàyyi boppam suñu sois fort papa. Hmm. sois fort papa. non. Hmm. Hmm. c'est dur mais sois fort. Isam papa laju ke. wax naa ak moom waxtaan bu yàgg expliqué naa ko lépp am metti trop ndax nee ma fi mu ak fukki at yi ñu ko daan mu war koo tëdd ci kaso bi naqar gi mu amoon bima ko wax te du loko bal ci aduna te reccu na lim la doon xamee ndax yak nga aduna nee na la wax aussi heure boko beugé wala bo togué baax sa sa xel ag ci lool sa bo ñëwé dina la may sa baat jërëjëf Kader sa papa su dere gi yaa ko rey dëggam li mu nekkee ya doy ko di ko ci dolli leneen yow ya nag su ma la jurulee maa def ci war ci yow maro raflé wo jaxlé wo suma jurul dom ñi jur dom ëppalé wuñ ma dara xam naa defuma yoon waye li nga may tek mérité wu ma hôpital fajna la topato na la dugal na la maternel ba secondaire ba université ba bitim rew ba sa jang yep ba nga doon tey li nga doon ci réew mi su dul woon man amaan na boo tekkiwul dara ci àddina xiifoo maroo raflewoo ba doon directeur général bi nga doon tey gannaaw yàlla man la yow waxi pouvoir nga may wax waxi pouvoir nga may wax lii nga may wax lii nga may wax waxu àdduna waxu alal li nga wax yëpp nangul naa la ko nag lépp def nga ko ba mu des doom sama yaay carte bancaire yeeg lépp ngi nii ne nga yaa ko def ci man mi ngi noonu àpp njureel am na kenn warante waaye àpp yàlla ak am mën nga maa def lu ma naqati waaye ñaanuma yàlla mukk sama àq dal su boobaa dina metti sa papa nag su ma bëggatul su paree ci man du yow la koy wax ndax ba may ànd ak moom fekkee woo ko te fase kenn du ko yóbbu sama man nga te man dangaa sori ci man lool te su ma sañoon ñun ñëpp dañu bokk benn kër su ma geesoo gis la su ma geesoo gis sama mag bu góor donc jaru nga ne fii di jooy te man bëgguma sax ngay jooy. t'inquiète pas rongo ñëw fii sama yaay yëgu ma damaa wàcc ma ne xaaral ma jaar fi moom xool la comme que gëj naa laa gis ma ne xaaral ma jaar xool na kontaan Iya. Kerjina, Ya fi bahis sabun sa kër la soo bëggee ma génn tey tey may fanaan ci mbedd mi sax bu la ko sa xol mayee dinaa ko def Kader kay Kader sukkal naa la balu la àq defuma yoon waaye man yow rek laa am su ma àddina yëpp bàyyee ma des ak yow mel na ne am naa lépp waaye soo ma bàyyee sama àddina yàqu dootul am benn sens kader yow laa am aw ma keneen na ma ñëpp bàyyi ma des ak yow bal ma àq bëgguma dara lu la dal bëgguma àq yaa dal na Amina li nekkoon sama xol ci lu baax ak li nekkoon sama xol ci yërmande ak ni ma meloon ci àdduna yëpp dindi nga ko sànni ba defee suma xol te deseetuma yërmande tu Ça va, je vais bien. Il m'a tellement manqué. tu vas On est bien. Bon, moi, t'es dans ma diarrhée. Hum. Mhm. tu ngay taxawaalu la Xaaral rek. Xaaral ma la. Lan nga may wan? Ma xaaral rek yow. Najaat. Ma bébé, comme nduro. Je nga bi mon papa. Ma qu'est-ce qu'il y a? da nga dox yow lan ngay taxawaalu loo doon def fii ba may àndil ay vidéo ku la ko sant lan nga doon def fii. maa ngi sama grande sœur. mais ñii samay noonu lañ nga naan ma grande sœur ana ki nga fi bokkal deret arrêté la lii laa la yare xam nga kii lu mu def. ngeen wàcc mu di taxawaalu fan lay jàdd lan lay jàdd ak fi mu dem lan la fay wuti. calme-toi moo tax nga dóor koy dóor dama koy rey mu dee. pourquoi. ay dala demoon. ñooñu xam ne ay woyu lañ ay bandi lañ. lu ne def nañ ko ni ma nekkee nii sax neexu leen ci ñeema lañ dëkk soxor nañ bon nañ seen yaay bon na ba dee léegi Aïda moo ko dese te attention doomu wujj wujj la ah. وزيز لن لا لي واخ فكان ني كادر لور مولا تخجب ولا مولا في اندي من دا ген كركي تونتوم اسكو مونون نا في واخ با جوغي في سو تودول وون بروم دوما كو تودو ناخ اندي وما في جي با لو تام انا مولا تخجب li ma tax a jóg leen rek la xam nga notre secret wax naa ko Kader. quel ñu moom sama papa juru ko Amina juru ko man maa ko ko ma. mais Waziz yow da nga dof lan mais secret bi nga wax xam nga ñaata at lañ ko denc. yow c'est vrai que ne mënoo woon nekk sama jëkkëru jarbaat ndax loolu sa ndeyjoor bii wax sa càmmuñ waru ko woon njëkk ma am si yow confiance wax la secret boo xamante ni ça fait des années ma denc ko tu mérites la mort ndax koo ma wax gënoo xam DG nga dugg si samay 18 di def lu ma la santu ba pare ñëw affronté ma alaati mu nga tonton mak deug kenn du ko si du deug yep la ñuy nëbb ndax bomb bo xamanteni yag yag da fay tak man ko tal ben yoon mu da nga tuti ci tal sama bomb qu'importe waye wax nak ko ko chantal chantal quoi mais chantal mais, mais tu es agressive mais qui non agressif non attends attends écoute-moi Chantal kii sama yaay laa ko tuddee au moins nga bàyyi ma ci en plus le fait mu dem kër Aïda mais deret day xeeñ morom ma mis kooku wa ayul ayul ñu loolu warul tax nga koy dóor nii Chantal revient terre mais arrête quand yow danga may yuuxu léegi may wax nga ciy teg baat mais attends fii samay waaw moo fiy wéy kii li ma neexul du ko def sama doom la li ma bëgg la may defal du dem kër ayda du dem kër Aïda ndax bul fàtte ne famille boobu ñooy samay pur ennemi mais lu ne def nañ ma ko fi lu ne wax nañ ma ko fi yàq kese moo ci des ah lii lañ ma soxoree li ma am toi tu m'as aimé léegi nga bëgg ñoom ñi may soxore di ma bundu xataal su xaar di fa dem pour lan mais eh, eh eh attends wala da nopp yaayu Aïda ba tey bu ne da nga ko love toujours dangay ngay dee nga fekk ji ko mais fii maa fiy dogal falaa yem nag c'est pas possible